hey yo salaamaaleykum everybody yaa ngi am OMG ma lady Zes Major Mami Victory vous voyez après le concert on se fait une petite balade à Stambi ñu ngi Tour Eiffel donc je laisser à Des Major le soin de nous dire un peu concert bi nu mu fa demee woon noonu Des. Yeah, c'est ça en fait euh, concert bi démb la woon c'était magnifique mën naa ne un concert de mortel euh, diaspora bi yëpp ñëw soutenir hip hop Galsen Paris démb ñëpp a mu nekk euh, benn affaire bu nice. Euh, mën naa ne public hip hop bi nekk tey Paris bu nekk fépp ci àdduna tey ñoo nañ teewal hip hop ak liñ ko reporté yëpp c'était le samedi ñu reporté ko ba dimanche euh, mais teewul nit ñi yëpp ñëw nañu supporté hip hop Galsen màggal bés bi mu nekk nag initiative bu nice que je salue que je respecte euh, di wax chapeau à euh, Sénar Vision chapeau à Djidiack chapeau a Ibou Doomu Jolo parce que c'est pas évident kenn mësu ko def ñoom ñoo am courage support hip hop Galsen ñoo am courage teg lu mel ni mu nekk lu nice waaw tey ma gis leen xam rek mooy loolu kontaan daal sama si yi dama kontaan. mami mami yow. waaw mais nice kontaan sedd mais alhamdulilah quoi hip hop Galsen forever law ci kaw jëm ci kanam gars yi di ko yàgg représente parce que tamit si pa évident nga déplacé autant d'artistes indi leen ba fii nii affaire bi nice massive bi teew so du ñu def lu dul shout out. doomu Jolof Sena Vision SSP ay ñoom Tafa ay ñoom Jijak artistes yi participer yëpp sow bless up bless up yow yow mi ngi nii Mamy Victory DS Major OMG li ñuy wax mooy dañu koy dund des na des na des na salaamaaleykum salaamaaleykum OMG salaamaaleykum OMG dañu bëggoon xam sa impression après show hip hop Galsen à loo ci xalaat ah bah li ñuy wax rek toujours kontaan kontaan bu ñu gisee hip hop Galsen am ndam donc loolu ci mën a wax kontaan nañ on est là entre copines ça fait du bien tamit nga gis ladies yi nga xamante ne ñu ngi ci rab bi def benn bloc xoola ñu ngi ñëw dal seen kaw voilà. alors là dañ leen di wax ne instant bii nii Tour Eiffel bi dañ ko nekk nekkatul coté bi mu nekkoon <laughs> hip hop Galsen déplacé ngeen Tour Eiffel bi ñu ngi koy gàdduwaale indi Dakar foofooy dàq incha allah blessé. wax ko sa gars yi ah ne leen on n'a pas le temps ne leen on n'a pas le temps what's up guddi teel a yeewu non amul temps it's my girl dañ koy